wax ci li ñuy teg ci loxo askan wi euh, dama jàpp ne euh, dafa am foo xam ne dañ fa jóge d'abord dafa am fu ñu jóge mooy dafa am un un boo xam si dafa war a pare dem am keneen ku war a wut moom un bilan moom un bilan donc la coalition Benno Bokk Yaakaar avec le président Macky Sall dañoo am un bilan ñun ci suñ jàngat ñu gëm ne bilan boobu noonu y des insuffisances y a un passif lourd par rapport à ce bilan-là ñu jàpp ne Déthié Fall constitue une alternative crédible pour répondre aux attentes des Séné des Sénégalais pour répondre à ces manquements mais non par rapport ak l'offre bi nga xam se ne ñun moom lay jox Sénégalais yi offre bi tëbu tëb rek wadd na cëpp vous avez vu ñun nous avons au moins pu réunir nos cadres réunir l'ensemble des différentes organisations ak bànqaas yi nga xam ne si ne yëpp bokk nañ ci luy doxal réew ñu tenir un séminaire programmatique waaw ñu war a consulter ñëpp ñu teg un programme boo xam ne si ne jàpp na ne loolu bu ñu ko doxalee bu ñu ci sukkandikoo Déthié Fall bu yàlla dimbalee mu egg fi mu jëm mën na apporter des réponses par rapport ak ces questions fondamentales yi nga xam si ne jàpp nañ ne qu'elles constituent des impuissances du point de vue bilan de Macky Sall. quels programme boobu nag xam nga programme dañ koo tënk ci lii ñu bari tout à l'heure vous avez parlé fond na des questions yoo xam ne si ne l'éducation ci ngeen jóge vous avez parlé des mots qui gangrènent l'éducation l'éducation donc ñun éducation bi jàpp nañ ne la question des abris provisoires dafa am loo xam ne si ne politique la boo xam ne si nekkatu ci question concept wala slogan il faut aller fair droit au but te loolu lan lañ ko mën a defee mooy il faudra définir dans le temps horizon boo xam ne clairement ci nga koy évacuer ba abri provisoire yëpp jeex li mu laaj c'est des investissements c'est des investissements donc ñun nag yàlla dafa def xëy na Déthié Fall bu faloo contexte bi muy dikkee dafa am d'autres ressources yoo xam ne jàpp nañ buñ ko puiser buñ ko exploiter la question de l'éducation et la question de la santé drastiquement mën nañ ko mën nañ mën nañoo faire mettre fin à tous ces à tous ces mots parce que li ñu manque c'est des questions d'investissement vous parlez de salle de classe vous parlez d'abri provisoire vous parlez de professeurs donc cela veut dire que un gap de huit mille professeurs cela veut dire que on doit procéder à des recrutements mais bu fekkee ne bu ñu recruter tamit amuñ xaalis bu ñu fayee professeurs yooyu ça pose problème bu fekkee nous n'avons pas de pour construire assez de salles de classe bu fekkee nous n'avons pas de ressources pour assainir l'environnement l'école de construire des amphithéâtres vous avez parlé de l'université de Bambey que je connais très bien falaa jàngee ah voilà donc pour vous dire que toutes ces infrastructures xaalis moo koy def xaalis boobu fu ñu koy jëlee c'est ça la question fondamentale ñun nag bu bu ñu yàlla dénkee dans le programme les li nga xam ne si ne yàlla jagleel nañu ko muy des ressources naturelles mhm. on va en profiter de ces ressources pour développer le Sénégal